docteur euh, Ahmed xalifa Niass lu ñëwal mbir mi nga xam ne moom lañ dal demmeeku fële ci diwaanu Kolda ay nit ñoo xam ne dañuy réclamer ne ay prophète lañu ñu gis leen ñu génn ànd di julli euh, ci àll bi mais ci ay kàllaama pulaar sol ay yëre yu weex mel ni ay nit yu sol solu màkka jëfin bi ni mel ban gis-gis moom la ci am. waaw. Hmm. maanaam loolu. Hmm. bu dee ñuy wax xalif généraux yi am nañu mission. Hmm. loolu seen mission mooy ñu xeex ak loola mhm. ndax ku weddi yàlla mhm. euh, te nekkoon ci biir islam kooku mooy murtad ki nga xam ne dafa mhm. te ñooñu am na ay dogal yoo xam ne lislaam dogal na ko ci ñoom démb tey dooru ñoom léegi nag premier concerné mooy suñu xalifa ca Medina Gounass Cheikh Ahmed Tidiane dégg nga doomi Cheerno Mouhamed Seydou xutu yàlla bu mag boobu nga xam ne ñun ñëpp fonkoon nañ ko def ko kilifa te muy suñ kilifa te jefoo ko tam yegg ne euh, te loolu euh, seytaane su tàkk foo xam ne ci agglomération am la bokk moom la gën a jege géographiquement moo gën a xam ne mu demee làkk we ñuy wax moo ko gën a moo ñu ko gën a xam moom moo war jiitu ci xeex loolu. Hmm. Hmm. deuxièmement hmm. bu dee doolee matewu ko. mu woote ay kàngam yi nga xam ne taxawaayam lañ taxawee. ca Kaolack ak Touba ak Tiwaawan ak. Kër Sëñ Abbas ak Njaasaan ak Canaba ak. fudul foofu. ba ba nga demee Ndogando ba ba ngay demee. waa kër Cheikh Saad bu waa kër mboolem mboolem kàngami diini ji. Mhm. ba ba ngay demee Get Ardo. Mhm. maanaam mu oo leen. Mhm. ñu dimbali ko ci ñoom. fekk ne moom du ko tële mi ma war a njëkk a te li mu war a wax li mu war a wax xam na ko li mu war a def xam na ko. kon nag ñun duñu réagir réaction mu mel ni moom néew fi. ñu taxaw taxawaayam fa mu ne daf ko fees del te doy nañ ko te ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci euh, encouragé mhm. won ko ne ñu ngi ci gannaawam mhm. lu mu laaj rek bu ne daf leen mhm. euh, kon su ma déggee bu baax docteur dafa mel ni kun daal da nga jàpp ne xeex bi ni mel balaa kenn di ci yëy yàbb ñoom ñu ñoo war a jiitu ngir euh, wax ci kun dafay mel ni ne ñoom daal ci li ñu nekk ku dëppuwul ak li nga xam ne moom la diine santaane fay lakk daal ci ñi a jege ñi gën a jege lakk ga ñoo ko gën a mën a fay ñi bëri ndox te sori ko comme moom am na ndox mu ko fay ñun ñëpp gannaaw bu ko yàlla joxee maqaama boobu ñu ngi wëlbati ne ko ñun ñëpp ay soldaar lañ ñu ngi koy déglu ci bu nee jóg leen jóg lu mu laaj ñu def ko ci xam na loolu li ci diine ji wax moom la koy jàngale waa kenn du ko jàngal lan moo lan nga yaakaar ne moo war a man a motiver wala sax nag eh, woo ñi nga xamante ni ñooy réclame ay prophète bay amal julli yi lan nga yaakaar moo leen war a mën a dugal ci li ni mel. waaw comme cas précis yi nga wax kaa précis bi lépp lu ci aju. Mm-hmm. laaj ko Cheikh Ahmed Tijani walla ñooy wax ci turam. Mm-hmm. ndax ñooñu ñoom la jëkk a war wala ñoo war ñun. Mm-hmm. Mhm. kon tey lan ngay wax tey Sénégal yi au delà de ki nga wax ne moo leen gën a jege te mu nekkee foofu la tam war na mën a am tontu waaw damay wax Sénégal yi nañ ci wóolu na Cheikh Ahmed Tidiane mhm. te déglu ko ca matee na ko mhm. la yàlla wax ci alxuraan ne inna xayra man istajartal qawiyul amin ki jara maye mbir mooy ki am doole ja te am fidélité ba te am volonté ba ñun ëpp ñu volonté gënuñoo bëgg lislaam gënuñoo xam lislaam Cheikh Ahmed Tidiane est-ce que tam jëf bi ni mel wala sax nag euh, lii ñu dal di def nii est que war na mën a nekk lu possible ci ak fi jamono toll ak tamit diine l'islam taxawaay bi nga xamante ni ku ci nekk ku ne war na ko ci mën a am est-ce que c'est une possibilité. waaw xam nga loolu dafa waxaat li ma wax léegi rek ba noppi. xam nga kii mënu dara pare. Mhm. nga wëlbati ko di ko laajaat si forme de question wax naa ko. Mhm. le premier préposé c'est Cheikh Ahmed Tidiane xool xool ko ci armée bi. Mhm. bu dara xewoon foofu. Euh, euh, euh, wàllu armée bi nga xam ne ñoo nekk ci zone sud wala ci zone est. Mhm. ñoom ñuy njëkk a def liñ mën contre l'ennemi. Mhm. bu ñu laajee renfort ñu laaj ñu renfort non rek lay demee demeewul leneen.